mécanisme la ñuy utiliser mhm. euh, pour def rebasing bi bu ñu ko defee euh, ci ban plafond lañ war a lañ war a taxaw non xam nga rebasing bi tey dafa am euh, start-up yi dafa am yu bëri bu lu changé te 2014 ba 2024 xam nga rebasing du dara lu dul le PIB c'est la richesse bu ñu créer à l'intérieur du territoire lii da koy wutal base maintenant base boobu nag day dem ba si ak day am ay ay nouveaux yu ñëw yu bees ay nouveaux secteurs yu ñu mën a intégré ci recette fiscale yi te kenn intégré te kenn intégré wu leen 2014 ci ci base bi moo tax nga defaat beneen base bu bees te base boobu mën nañ ko defaat parce que tey y' a tellement de métiers yoo xamante ni bu ñu leen accompagner. mais digital bi digital bi bu ñu ci accompagner xale yi rek mais c' extraordinaire yooyu yëpp c' est France dem nañ rebasing nañ ba rebasing prostituées yi ñuy fay impôt. ba mm-hmm. dugal dugal p ci mm-hmm. parce que dañoo def parce que il état day yëf day changé dix ans. mën nañoo xoolaat parce que dañ koy def pour ça deuxièmement dañ koy def pour wàññi le taux d' endettement parce que taux d' endettement mi ngi ci 81 pour cent la dette globale boo boolee la dette des agences la dette centrale te loolu Sénégal rek la am ñooy def différence naan pour bañoon <laughs> dépasser plafond bi mais ak 81 pour cent boo deful rebasing di nga sonn pour mën koo wàññi. d' autant plus que Sénégal nee pression fiscale bi euh, elle est un peu basse par rapport au au des des, moo euh, yaa pour man déwén dina gën a déwén lay gën a lay gën a neex ci ñi euh, régime bi soog a ñëw dina gën a neex ci ñoom parce que déwén ci lañ gën a am assise gën a am visibilité sur la chose euh, parce que recette fiscale yi bu yokkee euh, mu am assainissement fiscal ça tous les dépenses que les dépenses soient productives le problème bi ñu rey Sénégal beaucoup des dépenses parce que les hommes politiques bu ñu toogee tuuti rek président Macky Sall dafa def investissement yu bëri yoo xamante ni doolelul tey man moo rêve c'est ñu am beneen entreprise bu am doole ñu Sonatel au Sénégal nga xamante ni euh, tey sur le plan alimentaire nga am beneen il faut que ñu créer des pôles économiques yu mag yu ngan des géants yoo xamante ni dañu conquérir le marché africain stratégie boobu état war a def état loolu moo tax euh, l'état a besoin des entreprises les entreprises ont besoin de l'état parce que état bi dafa war a tey génn ci situation bi mu nekk euh, situation 18 euh, millions d'habitants du du marché on doit viser le marché des 500 millions d'habitants de la sous tey danga war a am pétrole mais quelles sont les stratégies à mettre en place pour que ce pétrole là ñu ñu ñu ñu raffiner ko fii parce que boo ko raffiner fii rek nga xamante ni coût yi day wàññeeku muy électrice lépp day wàññeeku mais da ngay inciter toutes les entreprises étrangères ñu ñëw fii. dans la sous dans la sous-région ñëw parce que am nañu stabilité politique il faut que suñu stabilité politique jëriñ ñu dara stabilité politique daf ñoo war a jëriñ dara moo tax euh, man je pour euh, quelque part que état bi dépasse rapidement les 18 millions les 18 millions du marché mais dañoo fragiliser suñu secteur privé bi ndax secteur privé je n'ai rien contre le secteur privé étranger mais on a besoin d'avoir un secteur privé fort nga xamante ni na nañoo xuloog état bi parce que boo demee MEDES MEDEF France ci xuloog euh, Macron lañ dëkk mais xam nga lu Macron di xool day naan la CAC 40 France tey boo jëlee Louis Vuitton rek c' est 500 milliards Louis Vuitton euh, presque euh, les pays de la zone UMOA c' est trois fois le PIB des pays de la zone UMOA xam nga kooku loo ko coaché yaa moom son bénéfice yaa moom 30 pour cent à 40 pour cent de son bénéfice. ku fay liggéey dalay fay impôt sur le revenu lu Louis Vuitton jënd nga am ci TVA. ñun bu ñu demee Paris on on vide nos devises. Euh, avec un seul sac wala benn casquette Louis Vuitton léegi nga xool <laughs> léegi léegi état France nag même bu jubawul ak le directeur de Louis Vuitton day xool lu mu ciy am day xam ne kii c'est sa vache à moo tax fu muy mën a dem day bëgg ay entreprise am dafa gagner ay marché parce que day xool lu mu ciy am ñun foofu ñu am boobu stratégie. mais rebasing boobu bu ñu ko defee euh, mën na wàññi. Euh, endettement taux taux bi ba mën nañ ko wàññi ba ñaata. ba 60 ba 50 à 60 parce que rebasing mooy euh, xam nga endettement bi c'est dette sur PIB boo defee rebasing sa PIB nga yokk xam nga wala maintenant PIB bu yokkee bu jógee par exemple ci tey ñu ngi ci 25. vingt bon je dis n'importe quoi trente milliards de dollars mu fexe ba dem euh, trente cinq trente cinq milliards de dollars xam nga PIB day day yokk dette bi du wàññeeku. Mhm. mais comme euh, dénominateur day yokk na dette bi dina dina dina dina au moins ni ñu soufflé maintenant des politiques encore plus saines xamante ni les dépenses euh, d' investissement day nekk ci investissement yoo xamante ni c' est des investissements yuy créer infrastructure économique c' est que on a fait on a dépensé beaucoup d' ci investissement yoo xamante ni dañuy defaat xaalis. pour euh, pour téyewaat ko c'est-à-dire da ngay def xaalis ba pare au lieu nga xaar mu soulager la nga ci defaat xaalis mba wala. mais mais mais président Macky Sall am na ay initiative yu mu fi yu mu fi yu mu fi soulever woon euh, benn bi doon na doon nañu sax jéem a naan nañu crever nañu nañu nañu bu ñu respecté ti euh, la directive communautaire concernant 70 pour cent du du be waaye tamit xaw ma ndax dañ ko lu tax les les les les pays de mois wala euh, les pays africains mënuñu demaat euh, wut lu mel ni les deux initiatives qui avaient permis euh, de presque effacer la dette c'est-à-dire 2004 avec euh, le, le, le PPTE mm-hmm. et 2006 avec l'initiative d'allègement euh, de la dette pourquoi mënuñu recourir encore euh, ci initiative yooyu pour que ñun ñu mën a souffler parce que dette bi wàcc 2006 2004 2006 presque on s'était on, on s'était débarrassé de notre dette xam nga ñetti dette moo la dette commerciale mooy dette privée dette multilatérale ak dette bilatérale. mooy bu euro dette commerciale mooy bu eurobond bi eurobond yow. Mhm. yaa jënd yaa jënd ci eurobond yi pour sa njaboot. Mhm. kooku mën a koo baale. c' la dette privée kooku kenn du ko baale te ñu ñuy dem ci eurobond dafa bëri. dañu dem ci bon du trésor dafa bëri loolu ay investisseurs ñoo koy. mais bu ñu tegee dette commerciale boobu à waaw dette euh, multilatérale bi waaw mooy bi nga amee banque mondiale FMI ak ak ak nu mu tudd les les les fonds bilatéraux. waa fonds yooyu xam nga xam nga fonds yooyu tamit dañu lay naan yow xam nga su ma la euh, yow nga ñëw lepp ma ma lebal la xaalis nga taxaw di ma saraxu pour ma may la ko ok mun naa la ko may mais bu subaa di nga soxla boo ñëwee man la ah yow kat boo lewee pare boo waree fay fi nga nekk di jooy. waaw a bénéficié de ces initiatives. pas peut-être un élan communautaire. c'était c'était dette xam nga boobu yebu woon marché yi trop. te boobu euh, dette multilatérale bi lañ gars yi la gars yi soulagé parce que effort yi nga xamante ni defoon nañ ko la mais c'est que bii ñun dañu dem léegi sur le marché des eurobonds sur le marché des bons du trésor des obligations. de 2014 à nos jours. waaw dafa xaw a bari je pense am nañ plus de huit ma neuf eurobonds. te loolu nag xaalis boobu kooku c'est y a ce qu'on appelle clause d'action collective CAC ñoom mooy club de Paris homme d'affaires yooyu ngay taseel ngeen waxtaan mën nañ la mën nañ ko rééchelonner. <clears throat> mais duñ ko parce que investissement la. mais bu ñu génnee ci bu ñu bon euh, bu ñu génnee la part de la dette euh, bilatérale ak euh, multilatérale. Mm -hmm. déjà loolu koy bu ñu ko bu ñu ko effacé dinañu may marge un peu. mais par exemple chinois bu ñu la lebal xam nga dette xam nga France la doon wax <coughs> xam nga aujourd'hui la dette bilatérale en Afrique 40 pour cent c'est une dette chinoise c'est c'est la Chine ci ci qui prête les aux pays africains. France comme France dooleem dafa wàññeeku bu baax a baax xam nga moo doon moo doon xeex ak Macky Sall pour ñu baal pour ñu effacer dette boobu mais Chine mënul ñëw investir Sénégal boo ko nee baalal dette Sénégal bi mun la wuy mais à une condition. laquelle. ah jox da nga jox marché bi marché bi marché bi aussi simple que ça. dans le on est dans le monde des affaires donc c'est pas une solution viable. Ah, moo tax moo tax yaa ko leb yaa koy fay la dette multilatérale banque mondiale FMI ñooñu mën nañoo xool bal la moo tax nit ñi yàpp parce que ñoom tamit moo tax ci loolu la xam moo tax ñu mel ni professeur bu yor yet du la bàyyi nga def li parce que bu mettee man ngay woo parce que xoolal Gana ba fi toogee Gana ne moom génn na ça ok deux ans mënatul dara tey aujourd'hui Gana moo ëpp taux directeur en Afrique banque centrale mi ngi lebalee banque commerciale vingt neuf pour cent y a un taux de taux directeur de vingt neuf pour cent la où nous sommes à trois virgule cinq pour cent pourquoi dafa dafa dem ba da indiscipliné sur le plan euh, Ghana Niger dañoo indiscipliné sur le plan sur le plan financier loolu nag FMI li muy ñëw mission yi pour loolu la dalay xool tous les trois mois dalay du la du la may nga yàq sa nàkk parce que day dafa am ñoo xam ne dañuy gaaw ci xabaabal li pour man li gën bor bi yaa ko leb fay ko bañ a lebale lebati xaalis di ko dugal foo xamante ne amul njëriñ nit état ak nit nitayam may mun a kuy leb di dem soirée di noose xaalis bi fay jote mu ne baal leen ma ko mais. mënut a ne quand